ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ni ñu ñëw si njëkk sport sport moom ma nga fasal l'international zoru polonais bi ñu gën ko xamee si Lewandowski moom Lewandowski mii nag journal bi mi ngi si teg di bind naan gagné gannaaw bi nga xamee ni FC Barcelone gi ma ngay ket première victoire saison moom FC Barcelone amagul victoire ba léegi moom FC Barcelone gannaaw jàkkaarloo bi nga xam ne war na ko jàkkaarloo équipe boobu bii di Sociedad moom FC Barcelone gi ñëpp ñoo ngi koy xaar si boobule match mu dëggal boppam moom FC Barcelone gannaaw bi nga xamee ni moom FC Barcelone la mu doore championnat am neexagul ñoo ngi fekk ay kàddu Xavi si journal bi muy xam ni moom Xavi moomee nga xam ni mooy tàggat waa FC Barcelone di xamle naan ñëpp ñu ñu ànd ak teey ak dal gannaaw bi nga xamee ni lu ñu doore suñu championnat neexagul mais tey jii nag ñoo ngi yaakaar am suñu première victoire Deportivo moom journal bi nag ma nga fësal l'international polonais bi ñu gën ko xamee si Lewandowski sa xëtu njëkkee ànd sek waa FC Barcelone yooyu gannaaw bi nga xamee ni ñoom ñoo ngi leen di xaar tey jii ñu dëggal seen bopp ñoom waa FC Barcelone gannaaw match boobee nga xam ne war nañ si jàkkaarloo équipe bii du Real Sociedad moom FC Barcelone ñëpp ñoo ngi koy xaar si boobule match pour mu wane si boppam gannaaw bi nga xamee ni la mu doore championnat moom FC Barcelone gi neexagul ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk mi ngi ñuy xamal ni l'international polonais bi di Lewandowski tey jii lay feete fanweeri atam ak ñeent ñu ko siy wax joyeux anniversaire ba tey journal bi ñu ngi fay fekk l'international gabonais boobee ñu gën ko xamee si Aubameyang moom Aubameyang mii nag journal mi ngi ñuy xamal ni na bi mu jubali foofee sa Chelsea ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk Fils de Paye moomee nga xam ne journal mi ngi ñuy xamal ni yëpp yemba pour mu jubali équipe boobee di Juventus de Turin Barcelone dañuy jubali Madrid fekk fa journal bu ñuy wax Marca Marca moom journal bi nag mu nga fësal Real Madrid gi fësal ñaari joueurs Real yi nga xam ne ñoo ngay def seen sorit kii di Modric ak kookee di Vinicius Junior moom Real Madrid gi nag ma ngay wane boppam sa Espagne googee rawatina La Liga boobee nga xam ne foofu la nekk moo tax journal bi mi ngi bind di fësal naan une équipe dévastatrice ma ne ko waxuma la dévastatrice mais ma ngay wane leadership am moom Real Madrid gi sa Espagne googee gannaaw bi nga xamee ni moom Real Madrid gi ànd nag jouram yooyee nga xam ne ñoo ngay wane seen bopp bu baax ku si mel xamee na Karim Benzema ak kookee di Modric ak l'international brésilien bi ñu gën ko xamee si Vinicius Junior ak kookee di Valverde ñoom ñeent yi nag ñoo dugal ñeenti biwu Royal yooyee nga xam ne Royal da si doon jàkkaarloo équipe boobee di Celta di wax ni lii nañ leen indiloon si ay revue de presse di leen jaajafal ba beneen ak yeneen revue de presse jaa ngeen jëf